salaamaaleykum dal leen jàmm ci seen beneen numéro 7 sur 5 fii ci agence de presse sénégalaise ci sama ginnaaw ngeen mën a seen benn point normalisé bu SONAGED li ko waral tey mooy fàttali leen bésu set setal bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye moo ko initié te ñu koy amal suba ci gaawu gi 7 sur 5 tënku xibaar yi léegi lay doon. président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye jiite woon na talaata fële ci centre de conférence Abdou Diouf bu Diamniadio lii di dialogue national édition bi ñu amal ay waxtaan jëm ci yoon ak yoonal commission yuñ taxawal war ko càmbar indi ay saafara ba nga xam ne yoon ak yoonal dafay gën a ñoŋ fii ci Sénégal ñu ca noppee dina am ab rapport bu ñuy tënk jébbal ko kilifa réew mi état bu Sénégal ak ay partenaires européens taxawal nañu alxames ab projet jëm ci wàllu dem ak dikk fii ci Ndakaaru projet bi la ñu natt ko ci 260 milliards ci suñu ay koppar projet bi li ko waral mooy yombal dem ak dikk ci wàllu transport en commun fii ci Ndakaaru exécution projet bi dinañ ko amal 2024 jàpp 2026 ci réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal na tukki nemmeeku fële ca réewu Mali naataangoom bi di Assimi Goïta moo ko dalal ñu waxtaan ci wàllum coopération jëm ci ñaari réew yi di Mali ak Sénégal nu ñuy def ba coopération bi ñu gën ko ñoŋal ba mu ca noppee président Bassirou Diomaye Faye wutali na fële ci Burkina Faso foofu tamit capitaine Ibrahima Traoré moo ko dalal ñu sekk ay waxtaan jëm ci wàllum ndaw ñi ak lii di énergie agenda ngeen mën na ni président Bassirou Diomaye fay dina participer ci journée set setal bi nga xam ne moo ko initié woon en conseil des ministres ñu ngi koy amal suba fii ci Ndakaaru ak fépp ci Sénégal li ko waral mooy président Bassirou Diomaye Faye dafa bëgg a impliquer population sénégalaise ñu gën a sóobu ci set ak setal jëm ci nawet bi. li ma doonoon tënku xibaaru ayubés yi fii ci agent de presse sénégalaise ñu bàyyi leen ak vue APS su ayubés yi. di la ñaanal weekendu jàmm